monsieur Alcantara Sarr maa ngi lay nuyu yow yaay secrétaire général syndicat bi nga xam ni moo ëmb inspecteur ak inspectrice de l'enseignement du Sénégal ñu gën ko xam ci CIENS. ñu ngi am fay mhm. ñu am di teloon ci waxtaan bi ngeen bokk ci G7 kuréel googu nga xam ni moo dajale syndicat yi ayu bés bi euh, ñu génn ngeen nekkoon ci yëngu-yëngal gannaaw euh, grève ak débrayage amaloon ngeen fi marche ci euh, week-end bi ngeen daje ak gouvernement bi samedi précisément alors moomu. waaw ci daje boobu luñ ci moon a jàpp mooy d'abord. gëjoon luñ toog euh, ci jotaay bu mel noonu mooy plénière. avec le gouvernement nga xam ne ministre yëpp dañuy toog ministre yi nga xam ne ni moom la protocole yi nga xam ne moom la euh, une partie du G7 signé avril 2018 avec le gouvernement. Siel signé ko euh, fin août 2019 avec le gouvernement donc ñaari protocole yooyu. Euh, kuréel bu mel ni nga xam ne moom la ñu def démb euh, objectif am moom mooy mu saytu leen xool euh, ni nga xam ne ni moom lañ leen ni mettre en œuvre donc mu doon loo xam ne lu am solo lu ñu doon xaar il faut dire que depuis quelques mois ñu ngi def ay rencontres yu ñu tuddee monitoring parce que depuis que gouvernement bi changé de configuration avec la disparition du poste de premier ministre amoon na tumuranke ci wàll boobu mais on a un ministre qui est en charge du suivi du PSE euh, pour que mu jël en charge le monitoring euh, monitoring boobu dox na boobu ba léegi ñu ngi def ay rencontre def nañu benn plénière def rencontre sectorielle euh, mais demoon nañ ba benn moment quand même ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir G7 dañu considérer que mbir mi xawoon na sooxe parce que dafa mel ni benn exercice boo xam ne dañ koy def mais amul jeexital ci disons le respect engagement yi nga xam ne moom la gouvernement bi jël ci ñaar yi Euh, protocole yi nga xam ne ñoom la ñu moom moom laa cité léegi euh, moom moo taxoon ñu ne jot na ñu lancer une alerte donc plan d'action bi nga xam ne ni moom la ñu initié woon dans la semaine nga xam ne dafa dañ ko dañ ko dañ ko pare euh, ci le vingt 23 par une marche à Dakar une marche du G7 à Dakar qui a été un grand succès plan d'action boobu finalité moom mooy def une alerte wax opinion bi wax ak gouvernement bi wane que ne on n'est pas dupe il faut que gouvernement bi euh, xoolaat sérieusement sa copie mm. euh, xoolaat les différents point yi nga xam ne mooy structuré ñaari protocole yooyu euh, pour revenir avec des propositions concrètes moo tax rafetlu nañu donc samedi bi gouvernement bi woote pour ñu toog càmbar protocole d'accord yooyu donc bu ñu xoolee ci protocole bi nga xam ne ni moom moo lié gouvernement bi ak euh, syndicat yi nga xam ne ne ñoom ñoo composé woon G6 euh, ci wàllu lenteur administrative yi gis nañ ni am na ay jéego yi nga xam ni am na parce que na quand même ñu nekk mënuñu ni liste considérer que rien n'a été fait mm-hmm. am na ay actes yoo xam ne ñu ngi koy produire ay guichet unique def nañ ko parce que gouvernement engagement mooy ñu def ay guichet unique un euh, guichet unique de de de, de manière euh, régulière mm-hmm. euh, avancé woon nañ même trimestriel pour appuyer dossier enseignants yi nga xam ne ñoo nekk en instance au niveau du ministère en charge de la fonction publique guichet unique yi am na benn engagement bi mooy ñu poursuivre dématérialisa dématérialisation mooy fexe ba dossier yi nu mu néew nekk ci kayit mm-hmm. ñu utiliser jumtuwaay yi nga xam ne mooy informatique ak yooyu mm-hmm. xarale yu bees yi pour gaawal processus bi loolu ñu ngi ci parce que actuellement ba ñu xayma euh, maanaam boo jëlee téeméer euh, lu lu weesu juróom euh, fukk at en pourcentage. Mhm. boo xoolee ci de manière électronique lañ ko produire. Mhm. donc mais des na parce que gouver le ministère la fonction publique am na ay matuwaay yu mu yu prévoir en projet. Mhm. comme ay bureau relais ay formation yu mu war a def et cetera pour fexe ba. dématérialisation boobu waaye li nga xam ne moom la ñu seetlu moom mooy que malgré yooyu noonu am ñu constaté ku ñun ñëpp des na tamit ba léegi ay euh, milliers enseignants yoo xam ne ni toute catégorie tout corps confondu ñu ngi toog di xaar euh, seen i acte hmm. euh, yoo xam ne ni dafa am incidence ci seen carrière bu ma jëlee kaaw inspecteurs yi ba léegi malgré lim bu néew bi Mhm. inspecteurs yi mun nañu di nga ciy gis ñoo xam ne ba léegi ñu ngi toog ñaari at wala ñetti at ñu leen woowee inspecteur mais en réalité mhm. euh, sur le papier c'est toujours des instituteurs wala ce sont des professeurs mu doon loo xam ne ñu ngi koy naqarlu mhm. euh, considéré nañu réew mi am na expertise bi am na jumtuwaay yi am na volonté bi am na parce que feeñal nañ ko ci engagement yi donc na ñu jox jumtuwaay ministère yi nga xam ne ñoom ñoo war a traduire loolu en acte concret pour ñu dem dans cette direction beneen bi mooy ci xam nga dafa am processus Mm-hmm. boo xam ne euh, ministère bi am na responsabilité mooy initier projet yi mm-hmm. mais euh, disons que dafay jaar ci euh, étape yu bëri d'accord ñetti ministère yoo xam ne junjoon nañ leen moo tax sànq ma ne ministère yi ñetti voilà donc dafa am dafa am ay ministère yoo xam ne ñoom ñooy les parties prenantes mm-hmm. donc ministère yooyu de manière générale muy éducation nationale di fonction publique mm -hmm. di finance euh, euh ak budget mm -hmm. même secrétariat général gouvernement mhm. euh, ñoo ñëpp dañu war a xool nu ñuy yeesalee seen sen seen i seen i façon yu ñuy liggéeyee mhm. mu dëppook jamono dëppook xarala yi bees yi pour ñu mun a dem vraiment dans la dématérialisation mhm. simplifier processus yi procédures yi fexe ba nga xam ne ni enseignant bi en un temps record dina am actam parce que acte boobu euh, bu yéexee day impacté négativement carrière am loolu la ñu considéré beneen bi mooy mbiru rappel yi ñoom am na chiffre yu joxe euh, mais rappel yi tamit euh, bu duggee dañu war a considérer ne bor la boo xam ne gouvernement bi daf ko ameloon enseignant yi te bor boobu dafa juddu ci lenteur administrative yi donc ni ñu koy imposer dafa dëppuwul ak philosophie bi nga xam ne mooy nga amel nit ki dajale ko ay at euh, gëmm ci spécificité li nga ko war a fay euh, imposer ko comme si benn revenu la boo xam ne ni euh, daf ko am de manière normale alors que yaa ko ko ameeloon ah. bu doon sagom nga fay ko ko ci temps ah. donc buñ koy imposer ñun bëgg nañu ñu ñu considérer cette spécificité la donc ñu reparamétrer mm-hmm. logiciel bi nga xam ne moom mooy calculer impôts yi mm-hmm. ba nga xam ne lu ñuy dundu actuellement mu metti lool moom mooy que dafa mel ni dañuy joxe ci loxo bi dindi ko ci loxo bi loolu loolu jeex donc loolu mooy suñu gis-gis waaye daal bu fekkee ni euh, rappel la gouvernement bi avancé na ay chiffres yoo xam ne wane na rappel yi ñu koy fay lu ñuy jooytu rek mooy imposition bi nga xam ne dafa metti euh, ñu koy woo ci mu liggéey ci reparamétrage logiciel bi pour ñu génn ci euh, système bi nga xam ne dafa mel ni daal am na lu bëri lu ñu jël ci payooru enseignants yi mm. ci rappel yi te doonul lu jaar yoon beneen bi mooy indemnité de logement bi ci janvier bi Euh, dafa war a dem à cent mille francs ñoom nee nañu ce sera effectif mm-hmm. autant pour les euh, des effectifs pour les fonctionnaires mm-hmm. euh, pour les contractuels aussi c'était un montant forfaitaire de dix mille francs depuis janvier deux mille dix neuf c'est on considère que c'est c'est effectif pour le régime indemnitaire loolu nag moom mooy un peu la grosse pierre l'écueil parce que régime indemnitaire bi mooy maanaam système de rémunération bi ñuy wax foofu jafe-jafe la jafe-jafe la ndax euh, gëstu yu ci waroon def yëpp def nañ ko euh, boobu ba léegi dañ naan mi ngi ci table euh, président de la république mm-hmm. président de la république jëloon na engagement pour aller dans le sens une correction des iniquités mm-hmm. waaye considéré nañ ne boobu ba léegi daal dafa mel ni genre dilatoire Euh, dafa mel ni genre nelawal. Hmm. Euh, travailleurs yi ñëpp a ngi koy xaar du enseignants rek c'est les travailleurs de l'administration publique. Hmm. Euh, donc li nga xam ne moom la ñu woo gouvernement bi moom la ñu yóbbante le ministre Cheikh Kanté ak l'ensemble des parties prenantes membres gouvernement te te vraiment partenaires sociaux yi dans leur diversité ñoo ko lancé comme appel. Hmm. pour aller vers la stabilité. de l'administration publique de l'école sénégalaise mooy nag na président de la République ubbi ubbi waat dossier bi mm-hmm. euh, ginnaaw concertation yu nu amoon ak euh, gouvernement bi mm-hmm. ñu ñëw def ay proposition syndicat yi ay responsable lañ mm-hmm. ñu xoolaay ay échéancier euh, tenant compte de la conjoncture des contraintes sur le budget Euh, je crois que bu ñu ubbee am philosophie boobu jël taxawaay boobu dinañ am solution parce que ñun ñoo bokk réew mi waaye li ñuy bañ rek mooy euh, di ko utiliser ce dossier la mu mel ni benn serpent de maire mm. euh, mel ni pour nelawal syndicat yi la loolu moom vraiment duñ ko nangu donc euh, loolu la ñu woo gouvernement bi beneen mbir mi moom mooy mbiru corps des administrateurs scolaires. Mm. gis nañ ne dossier boobu tam évolué wul te dossier boobu dañ ne ñun gouvernement bi bu ci amee jafe-jafe dafa war a ñëw toogaat. mais am nañ ci ab jafe-jafe ñun waa CNC syndicat inspecteurs yi mun nañu xam ne bokk nañ ci ñu ñu xalaat ne. Euh, war nañu xool lan la ñu dégg vraiment ci administrateur scolaire euh, corps yi bu ñu ko créer nan lañ koy créé ci yenn anam profil yi boo ciy dugg euh, na ban profil nga war a am ban hiérarchie nga war a bokk pour quitter benn corps dem beneen corps est-ce que benn corps lay doon wala corps yu bëri ñu xool aussi option professionnalisation maanaam boo waree nekk intendant ñu xool est-ce que amul ay jumtuwaay yoo xam ne existé na déjà avec les CRFPE pour ñu former la pour quelques jours pour nga wala quelques mois wala pour une durée précise pour nga nekk intendant boo war a nekk proviseur aussi loolu possibilité la mhm. beneen possibilité mooy corps bi maintenant corps bi bu ñu koy créer complexité bi il faut ñu quand même ne ko mhm. ñun daal vraiment yaakaar nañ ne gouvernement bi euh, comme ni mu war a defee euh, ci système de rémunération bi euh, maanaam ñëwaat toog waxtaan ak syndicat yi noonu la war a ñëwaat toog waxtaan ak syndicat yi ci mbiru corps des administrateurs Euh, scolaire donc de manière générale ah. euh, loolu mooy jafe-jafe yi nga xam ne moom lañ seetlu mhm. ci wàllu habitat social bi aussi logement yi mhm. terrain yi nga xam non viabilisé digoon nañ ko enseignants yi tamit terrain yooyu ko. Mm-hmm. ay jafe-jafe la. Mm-hmm. Euh, on revient nous parler du programme des ah, cent mille logements. Mm-hmm. Euh, programme boobu am na intérêt boo xam ne gis nañ ko. Euh, newuñu loo xam ne ni amul solo am na solo bu baax. parce que conditions yi c'est des conditions apparemment intéressantes. boo xam ne mun na concerner yenn pàcc yi ci yenn corps yi. parce que bon voilà c'est une offre boo xam ne war nañ ko mën a considéré mm. mais accord bi c'était euh, de manière précise euh, ñu fexe ba nga xam ne ni euh, mbiru DMC yi ñu réglé ko mm-hmm. euh, loolu gouvernement bi engagement bi daf ci am ay jafe-jafe mm-hmm. externalisation lay wax daf ci am ay jafe-jafe mm-hmm. beneen mbir mi mooy pour l'habitat social distribution terrain yi travaux aménagement ZAC yi région intérieure yi ak euh, euh, aménagement yeneen ZAC yi nga xam ne nii de manière précise ak mettre à disposition les terrains non viabilisés ci wàll boobu moom vraiment on considère que ne on fait du sur loolu moom mooy protocole bi nga xam ne moom mooy avec le une partie du G7 maintenant avec le CENS les inspecteurs ñi ngi wax ne euh, là aussi sans entrer trop dans les détails suñuy considération mhm. touché woon na mbiru taxi yi mbiru condition de travail yi mbiru carrière bi Euh, mbiru rémunération aussi euh, ñu tënkoon benn protocole sectoriel yoo xam ne ministère de l'éducation dafa engagé woon au nom du gouvernement mm-hmm. euh, ne dina ci régler dina ci dox jéego mu am échéancier maanaam ay ay date yu ñu jàppoon mm-hmm. am na peut-être frémissement maanaam lu tuuti luñ ci commencé mm-hmm. mais lu ëpp lii laalaguñ ko. Euh, interpellé nañu ministère Kanté ne ko bu ñuy waxati monitoring. Hmm. dans la convocation nañu préciser de euh, de manière très claire que on parle du protocole d'avril 2018 on parle du protocole d'août 2019 aussi avec le syndicat des inspecteurs wax nañu ministre éducation nationale dans son compte rendu nay ñëw dans le détail sur le niveau de réalisation du protocole bi nga xam ne ni euh, moom la am avec les inspecteurs. Euh, te war nañu baral liggéey bi nga xam ne ni aussi moom la ñu jàppoon ensemble ne war nañ ko def pour inspecteurs yi aussi euh, ba ñu tëjee la longue phase de perturbation bi nga xam ne def na fukki weer ak juróom-ñaar euh, dox ay jéego yoo xam ne dañuy dañ koy def pour le système d'éducation et de formation pour la stabilité pour accompagner le gouvernement dans les objectifs de qualité et de stabilisation du secteur parce que secteur bi moom la ñu dénk mbiru capital humain ci wàllu Euh, émergence euh, tant que capital humain bi baaxul euh, mënuñu espérer dem vers l'émergence inspecteur yi taxawaay boobu la ñu jël mais pour yombal taxawaay boobu mhm. il faut gouvernement bi ministre de l'éducation nationale mhm. vraiment baral Euh, jéego yi nga xam ne moom lay teg pour am dem vers les objectifs yi nga xam ne moom la ñu jàpp ensemble. voilà léegi euh, ci tënk nga wax ñu lan la ñu mun a xaar pour la suite euh, ginnaaw ndaje mi ak xëy na yëngu-yëngal bi ngeen defoon lan la ñu mun a xaar ci yéen. waaw léegi li nga xam ne moom la ñu mun a xaar de manière générale mooy li ma la wax moom mooy que ne gouvernement bi yóbbante yi nga xam ne ni ñun yóbbante nañ ko xoo. Euh, ci président de la république euh, mooy sur le système de rémunération. Mhm. nañ dem franchement vers lu euh, ñu ubbiwaat dossier bi. Ah, par rapport ak yéen seen mouvement d'humeur en fait. le mouvement d'humeur. Mhm. moom laay wax nii c'est-à-dire. li nga xam ne nii moom moom moo am mooy dañ doon dañ doon lancer alerte. Mhm. maanaam alerte mooy yëglu nit ñi xam ni gouvernement bi engagement yi nga xam ne jëloon na ko ak syndicat enseignants yi. am na lu bëri lu ci sooxe euh, alerte boobu mun nañ ne dégg nañ ko parce que gouvernement bi woote na waxtaan ñun déglu nañ gouvernement bi li mu wax moom laa essayé tout à l'heure à travers les deux protocoles wan la li nga xam ne ni moom lañ ci def ak li nga xam ne concerné ne bougé wuñ ci euh, gouvernement bi dégg na bu baax suñu position maintenant ñun euh, dina ñu xayma aussi dinañ évaluer dinañu daje ci semaine bi daje boo xam ne ni dañ ciy waxtaan sunu biir Euh, xool euh, solo waxtaan bi ñu am ak gouvernement bi euh, ci samedi bi. Mm. maintenant bu ñu génnee ci liggéey boobu la ñuy xam ban taxawaay la ñuy taxaw. Ah. pour que vraiment objectif bi ñu am mooy fexe ba système bi doon benn système efficace. Mm-hmm. benn système efficient. système bi dugg dans un cycle vertueux maanaam xale yi jàng mm-hmm. résultat yi nga xam ne moom la ñu bëgg école bi am ko mu am ko loolu ñu taxaw ci te pour ñu taxaw ci nag il faut gouvernement bi jéem a ñu liggéey bi yombalal ñu liggéey bi mooy respecter ses engagements jërëjëf Alcantara euh, ñu ngi lay gërëm bu baax ci disponibilité bi yow la ñu doon dalal ma fàttali ci matinalu tay bi euh, muy secrétaire général syndicat des inspecteurs et inspectrices de l'enseignement du Sénégal